à la dernière minute boki euh, finalement ki n'a pas nekk moo di Abass Fall mujj ko convoqué par la section de recherche bu Colobane nag euh, moo ko convoqué suite à ces euh, appels à la violence Abass Fall mu nekk tête de liste bu Pastef bu département bu Dakar mujj nañ ko daal convoqué nag ni ki tey ni par la section de recherche suite à propos de nga Abbas Fall tenir Abbas il avait en effet exhorté ses militants à se munir de couteaux de machettes pour se venger euh, d'une attaque contre leur convoi exactement D'après ni mom euh, Abbas Fall se refus de se présenter devant les enquêteurs relance les interrogations fidèle à son mentor Ousmane Sonko Abbas Fall semble en effet s'habiliter sous son influence pour esti pour estiver la convocation de la section de recherche de Koloban. Si un opposant redoutable avait agi de la sorte, il aurait déjà été interpellé. Cependant, Fall, figure de passif en pleine campagne, reste en liberté. Euh, alors euh, mon ki que euh, Abbas Fall d'après li n'a que Modi exactement devant les enquêteurs mu relance relancer que Modi les interrogations fidèles à son mentor Ousmane Sonko Abbas euh, man ni mi ngi bëgg utiliser li nga xam peut-être pour esquiver la convocation de la section de recherche bu Colobane peut-être ce que opposant defoon kenn waxatu ko donc lors d'une caravane forcément nu ko euh, dans le quartier dakarois bu Baobab le 27 octobre 2024 euh, Abbas Fall woote woon na ses sympathisants pour ñu daal di euh, armé wu ay paaka ak ay machette ak yeneen ak euh, ces propos vont à l'encontre des avertissements du ministre de l'Intérieur qui interdit strictement le port d'armes, euh, de munitions et euh, d'explosifs Les responsables responsable politique que réagir ainsi si si la section de recherche m'a ouvrir enquête qui a convoqué qui par que pour une audition exactement alors enfin, le Canada a été justement par rapport à mur la section de recherche de aussi parce que. Euh, mais tout d'abord est-ce que section de recherche A doit convoquer un candidat en pleine campagne concrètement en pleine campagne. Faut que la a c'est-à-dire que Nous sommes les yow léegi sont xol euh, donc euh, bi ngeen a une nouvelle que la section de recherche a convoqué Abbas Fall non non yow sa xol alors d'accord, je ma ñëw je veux dire, que encore lu woon woni na lu Fall qui est aujourd'hui dans la mouvance présidentielle nous convoquons à la section de recherche bu nekkoon ci vous Macky Vous ko vous vous Aline vous amul Vous fi wax vous ay ay machette donc la convocation de Abbas Fall si c'est avéré dina dit encore une fois ni que ci la vous le Sénégal Sénégal changé na ci la justice dina encore une fois lu désormais on peut faire confiance à la justice hmm. mais attention il faut voir ni que est-ce que section de recherche a le droit convoquer en pleine campagne un candidat qui a tenu des propos qui lors d'une campagne loup il faut se poser cette question-là le refus de Abbas Fall il n'est pas dit que euh, parce que mom Abbas Fall il est lit, il est ça il est ça et ça il faut regarder est-ce que la section de recherche a le droit d'un un candidat en pleine campagne qui qui des propos politiques devant la chaîne politique. C'est la question que je me pose. Mais, mais man, je ne cautionne pas. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok, d'accord. ministre mm, mm. d'accord. poursuite pénale. D'accord, d'accord, d'accord, d'accord. Mais, mais, damay damay damay damay def damay def bu ni que Fall war warna de dem wuyji ji man de gem comme tout le monde faites une section de recherche daf ko yon permettre ko mu Abbas, ko Abass Fall dafa dem di wuyji comme kenen nu mu de sañ-sañ dem di wuyji man point y a pas Mademba y a pas Massamba donc devant la loi tout le monde est égaux la loi elle est dure mais elle s'applique elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur man donc li moy wane ne que encore ñi doon taxé ni que régime bi ñoo ñom ñom ñoo doon tej ñii ñom ñoo doon convoquer ñoo doon kumba am ndey wala kumba amul lolo lolu amul lolu amul mota mané la ñu yow aujourd'hui c'est xol parce que quand vous entendez dans la presse ni Abbas Fall a été convoqué par la section de non non je suis sérieux je suis sérieux non je suis sérieux non non, non, non, non. on ne va pas justement <laughs> euh, s'avancer même euh, du contact ay malheureux Diabo mais ce qui s'est passé c'est passé Abbas Fall c'est ça la réalité à Fallou peut-être Abbas Fall dina un a <laughs> exemple ñeneen ñi dans la violence parce que nous, nous, certes nous, campagne comme ah, pas pour justement se réjouir. Euh, si quand même. le droit de faire justice soi-même pourtant la délit dafa war a dem dafa war dem comme keneen tamit boo xamante ne bu ñu la jàppee ci flagrant délit da nga war a dem waxoon naa ko fii donc il n'est pas dit que on doit protéger l'autre et laisser l'autre on ne doit pas faire ça gis nga lu xew nañu bàyyi yoon def liggéeyam point man lu laa gëm na yoon def liggéeyam jaax na takk man loolu laa mës gëm musuma gëm warna war am wala warna nañu bàyyi ki wala war nañu ah, protéger ki enfin donc japp nga ni euh, yow sax japp nga ni peut-être euh quelque soit la situation Abass Fall dafa wara déférer li nga xam ne di à sa convocation malgré ñi ngi ci temps de campagne concrètement dama ne bu féké yoon moo ko dama ne bu féké yoon yoon moo ne warna Fall dem wuy ji section de recherche en plein campagne donc na fa dem bu fekkee yoon tamit waxul ni que abbas Fall dem wuy section de recherche en pleine campagne donc waru faa dem c'est ce que j'ai dit c'est simple que ça bu fekkee yoon moo cautionné ni que abbas Fall en pleine campagne section de recherche woo na te war naa dem wuy ji kon na dem wuy ji bu fekkee yoon tamit dafa ne warul dem wuy ji ci moment période campagne donc bu mu dem wuy point quand même aussi on peut pas bafouer les règles

jarul waxtaane nañ ko jëfee nañu appliquer bu fekkee euh, du kii comment dirais-je du farata sunna la nañ ko waxtaanee ba juboo yonent bañ na bañ na sa moom lu mu wax day ne ñii ñi kaay lañ ñu waxtaan maintenant bu fekkee lu jógee ci yàlla la loolu farata la kenn du ko waxtaane maintenant ci constitution bi bu fekkee constitution bi moo ko santaane loi nañ ko jëfee te bàyyi par parloo bi maintenant bu fekkee ñun suñu propre bëgg-bëgg ñun nañ ko waxtaane ba mi ngi exactement euh, miru ki n'a xam nekk modi di Fall ak tolluwaay wi donc nak il a été convoqué la section de recherche est activée euh, miru ki na xam nekk modi di Fall pour euh, nous, pour mu daal euh, déglu si cadre yi nga xamni ni itam yëkki exactement alors ñu daal di wéyal ba tey seen matinale d'information le truc de